mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Boy Diouf ak Bébé Zil Boy Diouf na léegi waaye demul deuxième combat de la soirée ñoo ngay lewaatoo Boy Zil wàcc na ci tànk yi Boy Diouf cokkaas na léegi Boy Diouf Bébé Zil jël na ko Bébé Zil jël na ko day génn Boy Boy a ngay dóor Boy Diouf a na ko làmb na <laughs> Boy Diouf moo ngay dóor doo fayu waaw da ngaa dof doo fayu zil bébé zil Boy Diouf Boy Diouf mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw journée sans production Boy Diouf moo ñëwoon ginnaaw bébé zil la nu jàkkaar lool rëj rëjante nañu léegi Boy Diouf eh, Bébé Zil jël na ko Boy Zil daaw na jël ko da ko bañ a jël na ko lu mu koy def da koy mbot caxabal caxabal daan na ko abib bi àtte na abib bi àtte na lu abib bi di décidé lu abib bi di décidé maa soo gis jël am na de mais est-ce que abib bi sifflé wul abib bi sifflé wut de abib bi sifflé wut de ah deux avertissement pour Boy Diouf Bébé Zil Boy Diouf Boy Diouf Bébé Zil Boy Diouf Bébé Zil kor na ko day dóoram du dóor tey mu dee laay Boy Diouf Bébé Zil Bébé Silla ngay dóor da koy jël lu mu koy def waaye Bébé Silla ba Boy Diouf taxawoon nga bëri waay Boy Diouf Bébé Silla Boy Diouf Bébé Silla da koy plaqué bañ na génn nañ saako yi Bébé Zil génn na Boy Diouf Bébé Boy Diouf Bébé Zil Boy Diouf Bébé Zil Zil ba leen koy wax lan la koy wax loolu la ñu xamagul jël na tànk ba Boy Diouf Bébé Zil Boy Diouf Bébé Sil Habib naan bëri leen ah coono day commencé feeñ Boy Diouf Bébé Sil Bébé Bébé Bébé Zil ni songee song bi dafa sooy ku doon ku da koo bëgg daan daan na ko Bébé daan na ko Bébé bi muy génn Ama ko ngemb. champion la waru bëreeg ñii booy ne fii di lëppi lëppi nañ ñëw. mu duma leen daan leen ay booyam fi ay moromam ak fi nañ ñëw na booy ñëw dégg nga de na booy ñëw am ragal tam maa lay siyaar lépp jàmm ci loole sant Serigne Touba wér tey naka bés waaw maa ngi dal jàmm rek mooy loolu waaw état de forme bi tey fan la toll état de forme daa Oh, tey lan ngay yëg laa bëgg a wax. <laughs> waaw sant Serigne dama naan état de forme daa am lépp lépp lépp jàmm moo la jàppale daal incha allah. lan moo des. mafia baa a ne mafia bi mafia bi. mafia baa ngi ne la. mais tey ngay bëgg xale boo xamante ni dama yàgg a dégg nga naan sama morom koo xamante ni maam moom dañoo tolloo ñu jox la sa morom ngeen tolloo ci lépp mu nekk xale boo xamante ni dafa nangoo liggéey ba pare te dara ñeme aussi. waa na taxaw dëggal boppam rek comme tëgg na may at tey la ko yàlla doog na taxaw dëggal bu dëggal. a toog. waaw yàgg na maa bu taxawee du yàgg incha allah. Hmm. waaw am xeex. lépp lépp bëri dóor la ñëw lépp xam naa ko kay comme mbëri comme ni ma xam xamee mbëri Papalaay ñi ma bëre ñoo ko gën a daase par yàlla bu taxawee di ngeen gis combat bu neex barki borom daaru nee na moom xanaa yow nga daw non day dama yi kontaan ma sama combat amateur dañuy bég hmm. day am xeex am bëree dina leer ci kanam. waaw waaw nañ bégal boppam rek moom. waaw noonu la mais ñu gis combat bii bi neexul ci yow est-ce que bii di nga xeexaat. bii damay xeex bu arbitre soufflé man fu mu nekk dama ko fay jëlee. waaw boobu boobu xam rek loolu ku ku loolu muy loolu rek loolu penalty la rek ku boobu. waaw waaw penalty la xam nga. mais baa boo xeexaatee penalty du amaat. non tey na taxaw déggal boppam rek. Hmm. yabuma lu leer laa lay tegal. mbër nuyu naa la. waaye ci loone sant yàlla. naka wàccaay combat métti woon. war nañ bu baax waaw mënuñu yomb ko baax. Ah. yéen. mais tey bés bi lan la laaj. waaw dara rek concentration bu baax. incha allah. mais tey mel da xaw a da xaw a wu sérieux tuuti de. waaw lamb ji ma wax laaj rek. lamb ji ma na ma fu nekk laaj nga ko laaj nga ko ay at. na nga ba tey na nga taxaw dëggal sa bopp. loolu moom la concerné. amul mu si. loolu yow lay wax. wax heure bi jot na daal ko. Ah. combat dina am. dina am lépp incha allah. mbokk yi arbitre bi sifflé na ci diggante Valdo ak Balz Valdo door na ko léegi Valdo la koy xeex eh Valdo door na ko léegi ko dóor mu daanu Valdo door na ko kaaw na eh, Balz Valdo jàppante nañu Valdo Balz door na ko baa du ko dóor mu daanu Balz baa ko dóor mu daanu moo ngay Balsa ngay dóor Valdo nga jàpp rek Balsa ngay dóor eh, Valdo jàmbaar la de Valdo jàmbaar la de ku yemu jël Valdo Balsa oh Valdo Balsa baa du dem Ardo Valdo xoolal na muy doxee Valdo ku yemu jël baaxul xeex ba mu xeex baaxul. ëmb la na. combat dox ci diggante Valdo ak Balz. ñu ngay lewaatoo. Valdo. Valdo jël na tànk ba léegi waaye jël ba baaxul. Valdo da koo bëgg a jàpp waaye du noonu Valdo Valdo Balz Valdo Balz Balz ni muy xeexee baax na <laughs> Balz ni muy xeexee baax na Balz ngay dóor eh foofu dañ koy aaye bàyyi jàmbur Valdo Balz waaw Valdo bi baa duñ ko dóomu daanu Valdo Valdo Balzu jàppante nañu ñoom ñaar Balzu mi mën a xeex de Valdo ngay dina daanu Valdo dina daanu dina ko dóor daanu dina ko dóor daanu war na ko ndomba daan daana ko ko eh Valdo mi ndaanaan la de Valdo Balzu Badji war na ko ndomba na ko ndomba dafa jël ay coup dafa encaissé ay coup Valdo dafa encaissé ay coup Valdo dafa encaissé ay coup daan na Valdo soow bi daa am ñëw leen ñëw leen waaw soow bi daa am ndox de. soow bi daa am ndox kay am na suukar sax. Ah. waaw. est ce que naanu loo ci. non naanu ma si. yaay kan. wala joona bi. joona bi. waaw. tey koy dajal. tey benn boy bu naan pour petit allemand. déggu ma petit allemand. waaw. tey naka nga ñëwee. dara yàlla may ñu ndam rek jàpp nga daan. incha allah rabbi. mooy sa ñaar combat. mooy sama premier combat li laa fi indi. jërëjëf bi jërëjëf. dama ko bëggoon dama ko dugg dugg nga dama gis nga doo ko ba nga continuer di ko téye. dama ko mooy. su ma nekkoon daan ko dama ko bëggoon dóor bu ma teg boppam dama ko dóor ba yow naan ma xam ne kii bi ñu bëgg a dee ma plaqué tànk yi jeex na dama mun a bëre balaa nga doon xam bu jël sama tànk naa ko yóbbu top 5 ki Seere Fall xelu xale rek. xelu xale xelu xale xelu xale xelu xale. bëgg rek bëgg jaamu kay. ci sant yàlla bu baax. koy dajal. Tandeer. ay naka waaw def tekk rek lañ ma yabee ak dal. waaw toog taxaw déglu tuuti mais bu yéexee ñu ngi si kaam bilaa waaw dina am loo si laaj rek. barke alxuraan lépp lu si laaj rek dinañ ko si barke ah, baax na Reuma ngi noonu toog ñoo ngi teg ànd bi wala boog fourne bi am na luñ ciy sotti ñoo ngi teg benn béjjën ak sémiñ ci làmb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 Petit Allemand Jona. Jona fa mu dugal bopp bi moo ko sonal. boo xoolee bopp bi daa suuf. Petit Allemand Jona. Petit Allemand ak Jona. Jona mbokk yi moo ginnaaw. Jona jàppoon na léegi jàpp bu baax. Petit Allemand Diona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 Petit Allemand ak Jona Petit Allemand Jona maaso maas taxoy taxabal taxabal na ko Petit Allemand tàq ko léegi taxabal Jona bañ Petit Allemand Jona taxabalaat na ko taxabalaat na ko eh Petit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 ci Allemand Jona arbitre bi sifflé waat na la ñu jàkkaar lool Petit Allemand Jona bi Jona bi mbokk yi moo jugee Petit Allemand jugee Bargny Petit Allemand Jona Petit Allemand dugg na léegi direct bu dal door na Petit Allemand door na wala boog Jona door na Jona Petit Allemand ca ga da koo bëgg a takk na ko da koy daan daan na ko Jona daan na ko Jona daan na ko. Coly Faye nga def laamu da koy tere Coly Faye Coly Faye allo Mbaye lépp rek nekk si ginnaaw Coly Faye ay biir semaine yu may doon suba yàlla nga yàlla may ndam ak njiwlu yàlla yàlla may ndam kese dama si waa kii di jaaree ay Boy ay Sa Thiès ay Alioune Ndoye yëpp bés de. kese lan nga bëree. lan nga bëree Boy. Ah, bi mu jàppale dóor di xeex mooy loolu xeexuma. mais ñu fi nga ko yeggoon sori ñu jékki-jékki mu rëcc. loolu da ngaa mën na la moo doon fexe fexe sa xasee génn. kon xam na la moo ko mën loolu da ngaa mën Ba suñu ko su ko fi mën taala ak seen mboq. ak bébé Allo amul amul na yàlla amul fooyam bisimilah suba yàlla nga yàlla may ndam amiin. naka ziar doom yaay maa ngi delloo ziar. ci loolu lépp nice. yaa ngi ci làmb li. loolu. da nga lay wax li nga dégg. ah man da ngaa gëj école Balla Gaye. de retour de ndigal loolu kay siiw na. Ah. maa ngi école message di ko wàcce. yaa ngi koy wàcce fi mu toll. non maa ngi koy wàcce maa sama doom day Balla Gaye ñu ngi koy wàcce. yaa ñu ci bëri nag yaakaaroon na ne ñagas bàyyi na ba. non dama voyagé woon dama génnoon dem Canada ñëwaat naa ko waa pour jël sama ay quelques revanche rek delluwaat quelque revanche nga wax de. waaw comme sa diggante ak kan ak kan ak kan. soq laa bëggoon mais comme dafa nekk si combat moom na de. non xam naa neex na te soxla gars yi soxla nañ ko te comme instant mi ngi saako yi. te yéen ñaa non yéen ñaa ñëpp a nekk man man. ñoo kañ nga gëj ba. daa daan jour combat si dëgg gi. et social maa ko bëre. rek mais du du làmb corona bi jaaroon ñu ngi soo joxoon avance Ndongo Lo nga jëlaat. non dama koy maye tànn béer ba pare soog dem isaat. billaay barke yonent bi. da ngaa jàpp ne fi mu toll yaa ko mën mais Ndongo Lo nag yokk na doole de. maa ko mës a mën maa mën maa ko doole làmb ji gisuma sama morom ma fi mën. te làmb leneen ay ay ay si am ko waa biir. mais bu dee bëri maa leen ko dàq damaa leen ko doole. mais lan moo nekkoon sa problème parce que ñu xam ñu xamoon la ak ni nga meloon ni nga mënoon ci bëri waane mais ñu dem ba ci biir boo ñëwee sax duñ non xam nga làmb affaire ceddo la te yooyu yoo toppoon affaire ma gën diine làmb du diine affaire ceddo la waaw léeg-léeg nga ñëw fekk koo man na la ñaar moo la mën ñaari yoon nga liggéey ko mu yàqu nga daan ko mais loolu dafa jeex saar ñoo jóg ay ceddo te mbër bu jël avance xam ne ceddo ngay bëreel waaw. baax na loolu dañuy ñëw gën koo ñëw dinaa ko. incha allah ñu waxtaanee làmb. jaajëf waaw fay naa la. ci loolu. sant borom bi rek. boobu ba léegi yaa ngi toog gars yi naan Thiatou Daouda Fall fu mu nekk Thiatou Daouda fu mu dugg nga toog laaxat suur ko ci lan nga ne. waaw dafa am ci luñ jugee te boo amee ci li nga jugee nit ñi ku la daa war a xam ne li nga jugee métti na la raison pour laquelle ñu laaxat suñ côté di entraîner euh, di nëbbu lu bari loolu la rek du leneen. maa ngi dégg ay combinaison di dégg ay combinaison lan moo tee boobaag léegi bëreeguloo. waaw man comprendre ma sax. man dañ may wax combat ba ma war a jot avance mais damay xëy rek ñun ma waaji daw na comprendre ma dara. mais caa daw la Fall lan booy di daw ci yow. moo ma jaaxal lii ndax caat benn booy bu xeebu la nii rek mais man comprendre ma. <laughs> est-ce que doo euh, loxo sa mag yi. ah nga booy ñemewuñ la. non sama mag yi laay taalal loxo rek bu ñoom mayee chance ma bëreeg ñoom. waaw fii que samay morom nangun bëreeg man oh, loolu la rek waaw. kontaan naa. waaw kontaan naa bu baax a baax a baax. ngi bandi bandi. wat Serigne Bamba Mbacke. saa yi yaram bee tàng yaram bi. da nga yaakaar. bilaay saa am na problème. sax. lajoor lajoor ay doomi téeméer lay naan ay doomi téeméer. man bu ma bu ma moom bu ma waxoon ma may ko potu protéine bu baax. bu kii yàqu na dama. ma. dama bëggoon lu os. mais lu os laa koy indil yaagatul. kon li mu ànd nii nga may noonu waaw Zé Baye Fall jëndee door na ko léegi jëndee Zé Baye Fall jëndee door na ko léegi ku mais booy bokk yi booy xool ñoom ñaar xaw na noo pante ñoom ñaar jëndee Zé Baye Fall rëm de simeeku na waaw lii de mooy noppi naa jëndee Zé Baye Fall doorante nañ daw jàpp Zé Baye Fall mbokk yi booy xool. moo xaw a ëpp tuuti ci laf xëcc na ko ba koo taf taxabal Diender Zé Baye Fall Diender door na léegi Zé Baye Fall Diender

da koo bëgg lu mu koy def. Eh, Jandeer lu muy def nii da ko da ko bëgg a teex Jandeer Zé Baye Diender da koy wooy sit na sit am na Diender daan daanu na Diender daanu na non Diender bi muy def bi muy def bi muy def kele bi. la door la door fes. la door fes kon daa def fes. te nee daan na Ousseyn doo waxantu. làmb yi noonu doo waxantu. làmb yi noonu. te nee daanu na bi muy def action ba la door fes ba te nee daanu na. 무라 어쩌면 무래 Cheikh Bamb Cheikh Bamb Cheikh Bamb yal na ko yàlla fay Cheikh Bamb donc yal na yàlla jël samay tiyaaba jox ko Cheikh Bamb di ko ngeen moom mu gën la toppee ma si dara barki Seydina Mouhamed bi ma ñëw combat bi ma sama quatrième combat dama fi mujj dama ñëw juum parce que Seydou naa woon fukk xale jàpp ma ma ñëw ñaax. ñu gis ne dafa tër lool yab mais man xam nga ni man man jàmbaar laa ma arbitre arbitre suuf la may taw sam moromu góor nu mu demee moo tax ma ñëw tey taxaw ba jël coup bu ko ma tooñ seen làmb la ba mu fi jógee dama leen amaloon bor duñ ma yabee moom laa ñëw bëree. non naa ma dama liggéey sama costume nu ma baaxoon fan bi laa tax ma taj damay taj taj coono bu métti barki di sant Amadia. moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. barki koo jëm. barki Seydina wax na ñii di bëre grand combat bi mënuñu ma. ñii di bëre grand combat bi mënuñu ma. kër ga ñu def émission ñi yaay ñëw. barki Mouhamed ya may indee la dañ maa yab. kii moo indi moo ma génnee si làmb barki Seydina xam ne dafa am ma yabee ba may ñëw. barki alxuraan karim ma demee ko. billahi di sant Cheikh Bamba bu baax. ak Sadio Diko. barki alxuraan jafe. moom lañ mujjee jox victoire bi. dama defoon recours. lii dama dama suur dama wóor. lii dama koy dama koy yàgg sama poor la. damay bëri billahi fekk am na fekk am na filmé ñu ko wane filmé fekk nañ ko filmé wallahi damay dama dama dama recours dama koy gagné. wallahi. mbër looy kaas. waaye dama ko daan at bi ne dama toog dama ko daan lii du yoon au moins ni ma koy entraîné sonn si combat dama entraîné bu os. ay mais su nekkul bi ngay tànn kele bi. Ah. fa nga tegee fes. wallaahi te ma fes sama tuba mu ngi nii fekkee nga filmé leen war ngeen gis ngeen suuf amul benn suuf amul benn suuf. wallaahi xam nga li la yoon may. xam lu ma yoon waaye ma lu ma si métti est-ce que filmé ko est-ce que filmé nañ ko loolu moo métti. filmé nañ ko kay. jeex am naa ndam wallaahi.

baa ngi wax ak ñoom Lat Dior Joe Lion Joe Lion ràcc na ba yegg suuf Joe Lion mbokk yi moo ngem bari Lat Dior eh yaa ñaaw <laughs> Lat Dior na Joe Lion cokkaas na léegi Lat Dior la Lat Dior Zo Lion jël na ko eh, la bëgg Lat Dior Lat Dior Joe Lion Joe Lion Lat Dior Joe Lion xale yi jàppante nañu ñoom ñaar ku ci nekk jàpp nga ne tekk di déglu Joe Lion da ko bëgg a taxabal waaye taxabal ba ñëwul Joe Lion Lat Dior Joe Lion Lat Dior Lat Dior ngay dóor Lat Dior Joe Lion Lat Dior Joe Lion Lat Dior bëgg na koo songale Lat Dior jàpp na Lat Dior jàpp na Joe jàpp na Lat Dior da ko lu mu ko bëgg def Lat Dior Joe Lion Lat Dior Joe Lion koy biij Lat Dior Joe Lion Joe léegi Lat Dior

Lat Dior jàppul bu baax Zolion jàpp na Zolion Lat Dior zo Lat Dior dóor na dóoraat Lat Dior Lac de Guiers ngay dóor Lac de ko nu mu koy def bëtt na ko génn nañu am na benn avertissement arbitre bi sifflé na Lat Dior Joe Lion xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi ci diggante Lat Dior ak Joe Lion Lat Dior am na léegi benn avertissement Joe Lion Lat Dior xeex nañu Joe Lion door na léegi gauche droite Joe Lion ni mu xeexe baaxoo jël na ko jàppante nañu waaye nit ki mbokk yi booy xeex booy dóor nga koy xool waaye gëmul di dóor gëm naa ne ku yootu dal te ku bul la dóor boo ko encaissé la la fekk du la neex. Lat Dior Joe Lion ee Joe Lion nga dóor di kaw na kaw na Joe Lion ni nga xeexe baaxul war na la ndomba est-ce que dina ca génn Lat Dior Lac Dior Joe Lion war na na ndomb Joe Lion war na na ndomb Joe Lion dóor ma dóor penalty la dina ko dugalam du dóor Lac Dior Joe Lion eh, daan na ko Lac Dior daan na waaw waaw laay wax nuyu naa maa ngi lay fay doom day sant yàlla bu baax. Eh, eh, da ngaa sañ de. waaw non dama kii rek ubbi ma jël sol. da ngay mu wadd nga jël sol. waaw ñun ay taalibe nag. mais eh, nga andi sa booy. mu am combat nag mag. sama xar bi biir premier di ko ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam sedd guy xol li topp ci ginnaawam peuple bi topp ci ginnaawam. sa xam nga rëm. waaw non xaw ma sama nekku ci rëm man moom laa xam ñaa laa rëm ñaa bu ndaw laa xam sama doom sama yoon nekk ci rëm ma. rëm lay dajante xaw ma rëm man damaa xam rëm man ñaa laa xam. lan nga ko waajalee. ni mu koy waajal xale la. xale la bu nekk ci yoon di pare bis su ñëwee ba ci bis gis na li ko topp mbooloo mi ko topp yëpp li ko war yëpp xam na ko. tamit mbooloo ko topp sama yoon nekku ci loolu. dégg nga mbooloo xale la ñoom ñaar ñëpp ay xale la maa ngi ñaan daal ñaar yàlla may ko ndam sedd guy loolu laa koy ñaanal. ñu gis euh, ñaa bu ndaw. combat yëpp day yoor ba mu neex mu daw jàpp. nekk njool moo xamante nee na na ñaa bu ndaw taxaw dëgg boppam gannaaw laaj na ko yaat na taxaw tey dëggal boppam. ñaa bu ndaw taxaw dëggal boppam ñaaxa soo ko xoolee xam ni du koy aniyeer xale la daa si yoon lu taxaw ci kanam mu yaakaar ne moo la man est-ce que dina jëfee loolu. ah ban ci biir géew bi daal su lu mu laaj rek dina def sooba yàlla. foo toll yow. man pare naa pare naa. mais de combat suba mënoo ko woon jël gannaaw kaw soo nee na dafa feebar. non non non waaw man ak Wouly war nañoo bëre. lak moom laa wax la waroon mënoo woon jël avance bi fii. non non jël naa avance jàmm ba pare kay. bu ma jaate benn avance. ñoom moo tali comme kii bi rek. waaw garaawul euh, jamaïcain xale la sama rakk la bu nekk si yoon nekk promoteur yàlla na ko yàlla jàppale li muy liggéey rafet na xaj na nii la yàlla tuddee woon journée bi rek waaye ñoo ngi ñaanal euh, euh, kii nu mu tudd mbër bi beneen mbër bi. ki war a bëre grand combat bi. Gora Sock yàlla defal ko wér ak tawféex bu ñëwaat jàmm ñu bëree ko. li ma jaaxal sa digganteeg wuli wuli nee na jamaïcain moo ko dig moo ko yeneen promoteurs yi ko tëgg yëpp day daanu te sa combat yaag moom jam tëggu ko. kon dama xam dina daanu kon <laughs> kon dama xam dina daanu soobu yàlla. waaw comme que ñeneen ñeeku ji mën ci ko kon dina xam dina daanu incha allah rabbi. kontaan naa maa la gën a kontaan jaajëf. ñetti at moom dëgg dëgg dëgg dëgg moom am na lu si le 25 décembre la woon mu ñu leen le 13 mu yàq léegi ñu le ah ko. ba ngeen yëgee blessure Modou Lo bi lan ban réaction ngeen am boobu waaw dama ba nga ko yëgee ne ah mbër mbër moom mbër blessé moom loolu moo am na si mbër quoi waaw waaw dañuy toog dëgg comme nañ ko rek bàyyi toog dëgglu rek après CNG bindil na dafa blessé fi mu toll il faut mu am deux mois ah Ama day toog di xaar Modou Lo ba mu wér mu soog a bëre ak moom wala Ama libéré nañ ko pour mu jël beneen combat libéré guñu ko bala koy libéré il faut Modou Lo wax ne mënul bëre doog ko libéré que toog bu yàgg bi ak xaar bu waaw bu xam nga xaar nga xaar nga combat bu taxaw peut-être trois ans yi nii ngay di xaar dafa metti CNG moo waroon xoolal leneen moo waroon xool leneen ndax mbëri il faut CNG protéger leen ndax nga toogee trois ans di préparer li nga am nga préparer sa mbokk yi préparer lamb jee yàqu ñaari mbëri doo leen doon demancé dara promoteur moom fu mu newoon la nekk rek toog kon CNG day mel ni si promoteur bi la far de te daa war far si mbëri ndax mbëri lu bon bon bon waroon leen dampé dara sax ndax kii blessé na kii blessé ñoo ñu préparé nañu CNG waroon na jël dara damp leen promoteur waroon na jël dara damp ñu toog promoteur bi doo leen dampé dara pare pour toog bu amaatee mën loo mënu bëri ama day toog dafay amal promoteur bi beneen combat loolu la léegi bu amatee diggante bi nag ku koy fay combat bi ah mbër ba bëreetul mënatul bëre gars ñu ne mënatul bëre nañ ko den ama nañ ko dédommagé wala ñu jox li mu war a moom ñu jox ko moom mbër bële ki beles ñu jox ko li moo xam ne moom dafa diggante bi waaw dañ doon dégg ñu ne Ama Baldé Gris taxaw ñi commencé dégg gars di wax mais ba ba léegi dégguñu nga def ci benn sotti waxoo ci dara kon combat ba mën nañu jàpp ne taxawul non fi mu toll xam nga moom ñooy xëy na taxawal combat xëy na waxoon nañ si Gaston bu yàgg waaye waxaatu si après xëy na nag ba mun na nekk xam nga yéen journaliste yi lu bëri yéen a ko mën a xam fi tool muy a moom xale la day entraîné matin soir bu yàlla boole war a bëri day bëree yow loolu la moo si nekk ci diggante bi bu ko CNG libéré pare ngeen pour jël Gris Bordeaux bu ko CNG libéré bu ko CNG libéré waaye jël leer na mënul bëri CNG libéré nii jël bañ a jël Gris Bordeaux ay dugal Gris Bordeaux ak ñeneen ak ñeneen kon combat bi taxawagul taxawagul loolu lañ leeral tey si ma ne combat nee na combat boobu taxawagul ama jëlagul avance Gris Bordeaux. waaw jëlagul avance Gris waaw na nañ. jërëjëf waaw jërëjëf si lay fay grand. la Maguette Seck. waaw loo wax noonu la. wala ancien gloire. ancien gloire boobu. waaw ci loolu. ancien gloire baa ngi nii ancien gloire bu dëgër bi. waaw ah, bu dëgër bi bu dëgër bi. mais tey naka ngeen andee ñaabu waa ñaa ëmb mu nekk booy bi yaru. booy bi nangoo neex a digal. boo xamante ni xam nga moom mi ngi pare carrière am quoi parce mi ci voie. waa di ko ñaan rek yàlla na ko yàlla suturaal mu eggalee carrière am ak sagoom di ko ñaanal bis bi tamit yàlla may ko si ndam waaw. mais muy bëre rëm est-ce que xam na rëm. non xam naa rëm mais est-ce que xam na booy ñaa rëm est-ce que xam na booy ñaa dama lay wax lu leer te suñ bëree ba pare yàggatul dinaa la wax est que xam na booy ñaa. kan mooy booy ñaa. waaw booy ñaa mooy ki nga xamante ni dafa xam fu mu jëm xam li bëgg yàlla na ko yàlla lafal cat may ko ndam te incha allah rabbi liggéey na lu ko yàlla lu ko lu ko may ndam. rëm nee ma laaj na ko ay at. tey na fexe ba na taxaw dëggal boppam. non non kii day dëggal boppam loolu jëru wax làmb moom boo leen doxee ba mu taxaw jaratul loolu quoi waaw. combat bi tey ci lan la mën a jeexee xeex wala bëgg. non làmb ji bëri lay jeexee xeex bi du demee ku ci njëkk ku ci xeex daanu. nga yaakaar ne am xeex kaaw nga yaakaar mënu ci ku daanu man maa la wax lii. mais ku xeexul est-ce que mënul daanu. ku ci xeex daanu. làmb ji làmb calcul la làmb bopp la. ñoom ñaar tamit duñu mais est-ce que tamit duñu fi yàggal te dañuy song non non ji day gaaw dañuy bëre ci bëre lamb ji day am bëre bëre bu gaaw bëre bu neex di nga ko gis léegi foo ah non man maa ngi nii entraîné di xaar toog samay dimaan tooguma ci ay défaite ci ay victoire laa toog aw nga ko loo ko combat ba léegi yàkkamti amagu loo combat non non lamb yi ñoom liñ bëgg dafa yomb bëre ñaari combat ñu wiiril la yóbbu la feneen loolu dafa yomb dafa mel ni ay booy la lay proposé de waaw man booy comme yan booy lañ la proposé. bari na bari na. mais booy bu booy bu su liggéey war a dajeeg man lu lu dajeeg man ma bëreeg yow. ma diggante ak Ada Fass. non Ada Fass du ma ko laaj. raw naa ko moom Ada Fass ci defar carrière la nekk moom day xool ku mën a daan mu jël la xam na ni su ma jëlee man man su ma Ada Fass jëlee du ma daan dama koy daan. ci kàtt nu nga teg lool. non bëre ni muy bëree man munu ma daan Ada Fass ni muy bëree daanu ma man. billaay wallaay. ni muy bëree kon ñan bëreel fi mu toll. non bëri na. Ada su ñëwee sax ma may ko chance loolu du problème parce que jàmbaar la gaynde la mais dama lay xamal ne suñ bëree ak man ñu lëng ko yóbbu. su diggante caatu yaraax. caatu yaraax bëriwul maa caatu yaraax lu mu koy doyee. bëriwul maa caatu. waxu non non. caatu bëreel bu bëggee ma bëree ak moom su ko weesoo tonnerre ak yeneen mbër. yu fi nekk yu mag man su may may damay may booy boo xamante ni dafa daan ay mag ñu xam ne kii dafa war a dem mu ñëw ma dëpp ko man booy bu ñëw ma dëpp la bu soobee yàlla. mbokk yi baa ngi wax ay jugeem Georges Bouss Papalaye Georges Bouss école de lutte Bada Papa Laye école de lutte Boy Niang Papa Laye moo nge moo ngeebul xonk li George Bush moo xajam tent bopp bi ñoo demee wet saako yi fekkiwul kenn George Bush Papa Laye eh, Papa Laye nag ne la waa Touba Noor ki ci diggi géew bi waaw Papa Laye mi ñax laf na de Papa Laye George Bush ñoo lewaatoo Papa Laye George Bush Eh, ñi faw ñu jure ni ko lemuy di waxee dañu faw ñu jure man ak yow waaye Papa Laye ak Zoss Boucher la ñu jure tey ñàkk a jure sa erreur la Zoss Boucher Papa Laye Papa Laye Zoss Boucher eh, Papa na ko léegi Papa Laye cokkaas na léegi Zoss Boucher George Bush daa bëgg Papa Laye taxaw dëggal boppam ñu jëflante ñoom ñaar George Bush Papa Laye ñoo ngay xeex ñoo ngay juree munu cee ñàkk munu cee ñàkk eh Papa Laye Zozo Bouss ñii nee naa la dañuy juree tey ñii nee naa la dañuy. Zozo Bouss Papa Laye faw ñu juree ñoom ñaar Zozo Bouss Papa Laye maa tax ngeen lekk yéen ñëpp maa tax ngeen lekk soo <laughs> eh, su bus Papa Laye tey man alab lebu mbëri tey dañuy <laughs> da ngay juwee Zoss Bouss Papa Laye Zoss Bouss eh jël na tànk Zoss Bouss Papa Laye jël eh, xeex jëlaat na ko daan wala nu mu koy def na ko Papa Laye daan na Zoss na tànk Zoss Bouss daj na ko oh Zoss Bouss sanga Zoss am cër nañ ma jox samay morom ma bëri ak ñoom. ñu gis nga dem Ardo ñëwaat. waaw mais lamb la affaire de góor la. combat bi affaire de góor la waaw moo jël combat bi moom moo ko jëlal boppam. Ndiaye Tine laa soxla. Ndiaye Tine laa a bëri. waaw Ndiaye Tine amul combat maa ngi fi noonu. seen combat en règlement ñaari góor yàlla lan ñaari xale yi xare. amul règlement kon maa soog a xam mu ngi soog a xam làmb ma jox samay morom Ndiaye Tine nañoo ñu bëre amul combat nañoo ñu bëre laa lay jox tontu la mu baal woo nga ma ne waxal fi tee mu woo ma ma woyoon nit yóbbante bi ne ko neel woo diw ne ko neel diw na woo diw jafe woon fi mu toll nii yomb na la muy combat. waaw gis nga de mooy loolu noonu. xam nga booy waaw ñun moom ne naa la ñun jaruñuy nekk di wër benn adversaire ay xale lañ quoi dañuy liggéey moo tax. yaa dafa mel ni neexoon ngeen. waaw sëñ Fallou rek. Ah. non nuyu naa la. waaw delloo ziar ay baax. ci ñëpp bàyyi na nga jël. waaw moom la borom dëkk bi. du la duggoo ci loolu. waaw tamit xam nga soo bëggee nekk champion faa ko daan ay champion fi sama champion la ñëpp nga fi bàyyi sama avance dafa lëmbee gars yi nangu ñu ko ma ne moom la fa gars yi bàyyi non normal ñu bëre ñu leeral. da ngeen bëgg kenn da nga bëgg kenn ki taxaw kenn dem. waaw de bu soobee yàlla bu soobee sëñ Massa Mbaye man maay dem incha allah. Ah. waaw yee. combat la. wax le 15 mai la ñu wax de. waaw maa ngi woo waa Pikine yëpp di woo waa Kaolack waaw comme ni ko daan defee di woo waa Guinée Bissau di waa euh, Maka Maka Kounda ñëpp di leen woo pour si bis bi ma daal fii sama ak si ay minutes ñu dem suñu yoon. kontaan kii moom gën a nekk combat. pour nekk grand combat la moo tax. entraîné na nag bay bëgg a dee. mais le bërëm dafa assuré. li muy def ni kee bërëm dafa assuré. ñaar bi daal li muy def léewaatoo daw daw daw daw na la caaw bu ko defee rëbb. rëm ñaa ndaw ñaari xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi arbitre baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ ñaabu ndaw mbokk yi moo ñëwoon rëm lanu jàkkaar lool arbitre baa ngi ñoom rëm a ngi kaabar abi baa ngi laaj ay jijëm Reum Niang laaj na Reum mbaxam na laaj na Niang mbaxam na abi di sifle na Reum a ngay demee wet Reum Niang bu ndaw Reum dafa am lu muy tari ngi taxaw di ko xaar Reum kàbbar na ko lewaatoo bi sori na ñaa taxaw na fii rëm taxaw ne ay waay bëre leen laala baaxu góor la rëm ñaa bu ndaw rëm a rëm ñaa bu ndaw ñu ngay lewaatu loxo yaa ngay laante kan mooy njëkk a dóor kan mooy njëkk a dóor ci ñoom ñaar waaw waaw faaw ñu xeex tuuti moom munu cee ñàkk rëm a ngay dox ci kawam rëm ñaa rëm ñaa bu ndaw Reum da koo bëgg a jàpp Reum da koo bëgg a jàpp Reum jàpp na ko Reum da koo bëgg jàpp bij na ko Reum bij na ko Reum ñaa bu ndaw Reum bij na ko Reum ñaa Reum lam duñ ko forcé Reum door na Reum dooraat na ñaa jël na ko ñaa jël na ko ñaa eh. Reum ñaa Reum lamb duñ ko forcé rëm xale bi nga bëgg ndaanaan la waaye rëm tamit ndaanaan nga ay lëm rëm duwaat na léegi ñaa lu ko bëgg a def da koy daan ñaa bu ndaw daan na rek